bu ñu la jàppoon pour wane ni justice musul nekk libre autonome dañ lay woo bu dee politicien yi waaye yóbbu leen ko ci chambre yu baax yi ventilateur climatiseur euh, ëppukaay muy nalaw si télé nangam nangam yooyu ña la doon tëj ñoo ñooy commandé lu sa tëj ñooy commandé lu sa dugg kaso ñooy commandé lu chambre waa fii Sonko dugg ci Diomaye dugg ci tëjuñu la arrêté wuñ la yaa reewantu ñu jàpp la yóbbu la buñ la yóbbee justice moo la yóbbu ñu paquetage la comme say moroom gënoo leen nday gënoo leen bàyyi fii citoyen ordinaire ak extraordinaire moo fi jeex bu toog muy dox jeexee le citi euh, le citoyen ordinaire ak extraordinaire jeex Bougane daa gën nday ñi nekk ci biir kaso bi ba war a ñëw ñu jox ko secteur boo xam ni moom rek ka fay nekk di njaaba njalle di ñaax ñeneen ñi ñeneen ñi <laughs> mais loolu day indi fippu dañ ne jub jubal jubbanti ay dirigeant mënuñu fi ñëw Sonko mu nekk ci kee moo def refus d'obtempérer d'obtempérer ñu jàpp ko yóbbu ko procureur kenn woowu ko nokk ko mandat dépôt kenn woowu ko Sonko woowu ko Diomaye woowu ko kenn woowu ko ñu yóbbu ko fi nga xam ni mooy ca kaso ba camp pénal ñan la fay fekk beneen autorité mooy ñan mooy ñi nga xam ne yooyu pénitencier ñu xool chambre bu mu xaj ñu dugal ko fa point c'est un sénégalais qui s'appelle Bougane Gueye Dany dara yokku ci Bougane Gueye dani profession politicien newu ci Bougane Gueye Dany journaliste ñu dugal ko mu fekk fa beneen moroomu journaliste fekk fa beneen moroomu beneen moroomu ak ku gën sax fekk fa imam fekk fa wëliwu fekk fa lépp donc loolu mooy wane rupture léegi nag gars yi nga xam ni ñoom dañuy kaas ñoom rupture bi lañ bañ parce que bu njëkk ba Macky Sall moo lay jàppalu wala Antoine ñàkk jot dem lañ jàpp ko ñu jàpp indi leen ko indi progrès waaw dóor ko 6 mois mu doon 6 mois dóor ko mandat dépôt waaw mandat dépôt dugg na alors xaaral ñu woo woo régisseur alors waaw régisseur naka mu waaw boo naka waa dugal dugalal ma ko chambre 48 dugalal ma ko chambre nangam donc ñooñu ñooy def yooyu mais kii Sonko duggul Diomaye duggul woowuñu waxuñu lii justice moo def moo jël jàpp ab citoyen comme tout le monde yóbbu ko ñu dox ko mandat de dépôt procureur mu dem ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo yor camp pénal bi kaso bi ñu xool fu mu xaj ñu dugal ko fa lii kese la la léegi la fi ne léegi nag bu ma duggee ba léegi jooy la fa nekkee moom sincèrement jooy kese loolu moom daa dama leen di décrire sax nag bu mu ñëwee mbuusu garab la indaale mbuusu ngandam mbuusu garab tey si suba rek mi ngi infirmerie tey suba booy yi dañoo bi saxaar xam nga dañuy dañuy tux mi ngi toog ci coin bi ci coin bi la toog di yëngal bopp bi jommi nag jommi day toog dë deux deux quelques secondes commencé tuur yi rek fomp fomp toogaat tey dafa dem infirmerie pour ñu may ko masque corona pour mu pour pour saxaar si tey si suba bu mu yeewoo masque corona la ñaani ji fa dem ne booy ñu ngi koy rey day toog mu yàgg rek mu yëngal bopp bi nii jommi la def jommi jommi jommi ci suuf lay tëdd paquetage newul dàmbaloo de dàmbaloo mooy ci kaw ci zeng yi ca suuf te tëdd paquetage booy dóor ko Abdou njaay mooy chef de chambre bi mi ngi chambre ab Abdou njaay moo ko naan taj dóor bloqué ak taatam yu yooyu rak dóor bloqué sëf keneen ci kawam ma nga pakataas munu ci dara chambre cinq comme ay moromu gënu leen nday gënu leen bàyyi fii citoyen ordinaire ak extraordinaire moo fi amul bu ñu gënul buggaan gëy nday gënul ak gënul nday kenn pourquoi buggaan war a dem ci ay secteur bu toog moom kese lekk ba suur naan ba màndi ma qu'est-ce que c'est que ça wax te loolu moo fi am Abdou Ndiaye guddi bu jotee nii nii nii buggaan mi ngi pakataas rak ñu xëcc tëral mu tëdd ñuy côté ñu dóor mu dóor bloqué nag tànk bi tànk gauche bi woo keneen mu ñëw kaay ñëw tak ñu dóor chambre bi y a plus de 47 prisonniers gënu fa kenn nday gënu fa kenn baay car plus de 47 prisonniers fa lay tëdd bu jooy lay def ba guddi jooy ba guddi di naan médicament nag man xaw moon dafa feebar paanu médicament la fa indi yóbbu fa sax paanu médicament day naan rek day naan xool gaa yi ni ki génn ki fomp ronga ñu tuuti toogaat yi yëngal bopp bi dafa mel ni ku jom yàlla bu mu fa dof yàlla bu mu réew ni day def ni rek yëngal bopp bi xool gaa yi di gars yi di tox foofu saxaar si ubale doo ko sax gis saxaar si ubale ko chambre cinq bu xoolal tey bu ma di yeewoo masque la ñaani mask masque corona pour saxaar si jommi na de barke rasul lay jombi ne billaahi bugaana ngay waaj a dee boo ko génnewoon na ko kaay do si si bugaana ngay waaj a dee mbuusu médicament la yor naa la wax daf katu cinéma mais tu vas le regretter say morom nga fa fekk ah gënoo leen nday gënoo leen bàyyi c'est une injustice totalitaire ñu la fay génne di la yóbbu ci benn chambre yow kese yooyu jeex na rupture la gënoo say morom walla tey rek il était à l'infirmerie di demander ay masque ndax katu cigarette bu ko sonal waaw si suuf lay tëdd ñu paquetage ko le gars dafa découragé complètement barke rasulaay bugaan nii dafa découragé ci àdduna comprendre da doon bandi bandi xam nga xam nga xale dañ ne picc li muy woy ci kaw garab du loolu lay woy ci ci loxoy xale picc ci kaw garab day woy bu ko xale bi ne nuuj dayu kaw garab day chantonné xale bi ne ko nuus jàpp tee ba xam ne lii loxo la naan ak bokkul donc buggaan ci mbedd bi la nekkoon bandi bandi non dañ ma tëj non saat bi non non ko nuus jàpp tee <laughs> ah, léegi ay yuuxu la ak ay jooy metti jamono ji nag dafa découragé day yëngal bopp bi rek ndeysaan dafa waar wa ah, day yëngal bopp bi jooy génn jooy rek la fa nekkee wallaay billaay guddi gi ñii paquetage nañ ko nii nii nii tëdd nañ bu yàgg Abdou Ndiaye dóor na ko korosé ba ba ko ci suuf ba dóor góos bi nii nag ba mu naju keneen ke ba mu sës espace bi nga kaay maa nga fa di ko dund de bu yeewoon nag nakk ci garab yi naan garab naan garab day naan naan naan jooy jooy fomp fomp toog ci coin bi du wax ak kenn yëngal bopp bi yëngal nii tourné xool gars yi xool góos saxaar si yi di mukki di sotti mukki tey bu mu jombee dafa daw infirmier may leen ma euh, kii euh, protection masque yooyu noonu pour saxaar si voilà ña nga noonu le représentant du khalife général des mourides bu Tamba dem na seeti jiko ko Mame Balla dem na seeti ji ko c'est le représentant mais dem na seeti ji ko en tant que xarit en tant que mbokk murit et cetera dem na seeti ji ko gars yi ñu ngi fay léegi nag loolu bu euh, Barthélemy Dias génn ñu naan naan ay man bu ma demee Tamba ah <laughs> yow Macky Sall moo la tëj moo la yóbbu foofu moo la fa dugal moo la protéger moo la dugal fenn ngay jaaba ñalle rupture nee naa leen moytu leen dugg ci kaso moytu leen lu leen chaque jour ma wax leen da leen déglu nag may information nag de Sonko nee na protégé wul Mbodj protégé wul patriote protégé wul ànd sàmba jikko yi nee na protégé wul dara yoonam newul ci justice ku fi dof dof lu ba dugg fa léegi amutal ay chambre yu neex yeeg chambre nangam de rupture ngeen woote jub jubal jubbanti yat bi buy dal fépp lay dal amutul ay benn bugaan ak Barthélemy ak mburti mburti ku fa dugg dina la dugal ci say morom ci say morom amul ay ordinaire extraordinaire de da ngeen def beaucoup attention waxoon naa leen ko fi nag ku fi dof dof la ba dugg di nga rëccu nit ñu la doon juree ndax doo fa gis Sonko doo fa gis Jomaay dañoo raxas seen loxo ci mbiri de seen yoon newu ci choisir lu chambre choisir lu nit fu ngay dugg def leen attention nag yéen patriote laa wax nag ku fi dof dof lu ba am fi benn mandat de biir laay boo génnee di nga bàyyi Sonko ak Jomaay te doo ndax doo gis doo gis doo gis seen poussière doo gis seen takk ndeer nay leer nag amu fi deux poids deux mesures amu fi de ku fi dugg di nga ñam lu bëggaan ñam na ngeen moytu plainte yi daal loolu laa leen mën a yëgal daal ngeen xam ko amatul si citoyen ordinaire extraordinaire jeex na de chaque jour ma rappelé leen ko nag ku fi dof-dof lu ba dugg di nga ñam lu bëggaan ñam amul patriote laa de di dugg ci paquetage ba dambaloo bi ñu nag la bu saf sàpp ngay dóor ci jagan bi voilà nay leer c'est pas parce que nguur gi ñi ñëw ga jël rek affaire day neex de lu moo la boo leen gisee léegi saagatuma kenn xasatuma kenn man nii maa ngi gën nekk bandi fuuf <laughs> gis nga numa ma changé stratégie saagatuma kenn awma benn plainte xasatuma kenn ndax xam naa sama gars yi ay dof lañ buñ ma neefoon surux tey dugal seen yoon naw ci nee la ñuy xool góor ana sonko wala ah, ah, on na nu ma changé stratégie rëbb dëmm ba sax laa jël tege ne leen ne leen bu mu amaatee li may wax bu campagne bi ubbee laay ñëwaat kon xam naa fu may waxee de ne leen rëbb dëmm ba bàyyi naa ko bu campagne ubbee nag rek ñëwaat rëbb dëmm bu jeexaatee ma arrêté parce que campagne may na bokk donc il faut être intelligent voilà xalaat fu ngeen di waxee jub jubal jubanti lañ wax lu dal bugaan mi mun na daal ku ku ne gars yi duggatuñ ci de bu njëkk ba li li Barthélemy di wax noonu Macky Sall la ko fa dugal wutal ko fa chambre jox ko fa appartement daq ñëpp génne leen muy njaaba njale ndéki na ñëw léegi na ñëw dina xam ne mbir ya na foo dugg mbir day changé lépp kaso baag lépp tout jeex na kon gis naa leen ñuy jooy naan non nañ ko génne foofu foofu dafa tàng dafa ba pare xam nga kaso boobu lu mu metti zeng la de <laughs> zeng xam ngeen zeng Tamba jamono jii 45 degré dans l'ombre bugaa na nga ñàkk too kat ah dinaa ne garab ñàkk ak ak bu <laughs> day fopp musuwaar rek xool xool gars yi booy du tox tagale tànk <laughs> nit ñi xool gauche xool droite Tamba sori 45 degré dans l'ombre mu ngi tàng jër ba pare parce que foofu zeng la zeng rëbës de zeng la kaso yi rëbës boo demee ci région yi yëpp zeng la bu Diourbel zeng la bu Kaolack zeng la bu Tamba zeng la sa am ngeen zeng zeng day xëcc xëcc dóor ko sa yuur gi 45 yi lay xëcc yokk ci moom Celsius loolu ko fëgg 50 ressenti 50 45 la ressenti sa yuur gi nag wokk wokk wokk wokk wokk di bax wokk wokk ndoxu yuur bi day bax wokk wokk wokk xulli gis booy ni xëccee di la dóori sa allahu ay waay ay waay kii man la di di di na ay waay kii man kii man bugaan lu ma def bu ñëw fii kii man la kon kon reewande mën na ma indil lii lépp ah noonu la mel tàng jër nag kon kii doful jina jàpp ko ma nga foofu di dund ni ay moroomam jox nañ ko ci saxaar bi jox nañ ko ci protection bi xaw ma nu ñu koy waxatee euh, masque masque corona ba mi ngi ak masque corona fu nekk nii waaw mu ngi ak masque corona loolu moo tax ñoom Barthélemy génn naan ay ay nañ ko changé lak ay la c'est inhumain c'est kon kon ñeneen ñu fa nekk ñoom xanaa ay <laughs> du ñu humain xam nga yoolu du respect waaye ñu fa nekk na ñoom du ñu humain bu dee ñooñu ñu fa fekk ñu fa dund Abdou Ndiaye moomu ñaataat la fa def Abdou Ndiaye moom xanaa du humain te gisee guñ ko ah wala même buñ ko gisee nit la xanaa du humain c' est ñu fa nekk nag ay xar lañ wala ay bëy wala ay mbaam ah reewande yooyu Barthélemy Dias moom dafa mus bëgg reewande ak bandi bandilu te du Crips du Bloods bokkul ci benn gang dafa mun a reewantu